asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm coalition Benno Bokk Yaakaar tas na tasaar ca bët saalum réew mi rawatina nag ca diwaanu Ziguinchor la ko waral tey jiw culikay bi di Sud Quotidien moo ñu koy xamal moom mooy ne kii di Macky Sall te mu daal di jiite coalition boobu daal di nay tànn ki nga xam ne moom mooy Benoît Sambou ngir mu daal di nekk candidat wu coalition bi ci liste communale xibaar bi ni mel neexul dara waaye ki nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Baldé moom mi yaakaaroon ne moom la ñuy daal di tabb ci noonu sax la daal di xamle na nag ci biir coalition boobu julikaay bii di Sud Quotidien di ci yokk duñu xamal ne nee na dafa fas yéene demal boppam julikaay bii di Sud Quotidien daal di ci am ñaaw njort ndaxte nee na suñu maytuulee kii nga xam ne de moom mooy Abdoulaye Baldé mën na longoo sax ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane te bu boobaa moom du baax dara ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar rax ci dolli daal di nañuy tànn tamit ki nga xam ne de moom mooy Seydou Sané ngir mu daal di nekk kii jiite liste bi ci wàllu départemental julikaay bii di Sud Quotidien di wax sax ne tànneef boobu moom bettul kenn wante it ki nga xam ne de moom mooy Doudou Ka moom it kenn fësulu ko nag ci wàllu tànneef yooyu julikaay bii di Sud Quotidien daal di njort tamit ne suñu maytuwulee vote sanction mën naa am foofu nga xam ne moom mooy ci biir diwaanu Ziguinchor li am ba des julikaay bii di l'Observateur mi ngi ñuy ne kii di Abdoulaye Baldé moom nag daal dinay jógee ci coalition Benno Bokk Yaakaar fas yéene nag taxawal coalition boppam wante it daal dinay mooy ci diwaanu Ziguinchor moom mën naa dem sax ba daal di longoo ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko li ni mel tamit autolikaay bii di l'observateur du ñu xamal ne du baax dara waaye ci ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar autolikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne lu weesu diwaanu Ziguinchor fa li nga xam ne it moom mooy ca diwaanu Ndar foofu moom Yewwi Askan Wi moom moo fa nekk ci ay jafe-jafe ndaxte kii di Cheikh Bamba Dièye te mu daal di jiite parti bi FSD/BJ moom ci boppam moom mu àndul ñi nga xam ne ñoom ñooy nar a nekk tête de liste loolu moom moo tax ba mu daal a gaawee ñu daal di bi nga xam ne commission départementale d'investiture bu coalition Yewwi Askan Wi moom la fësal foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar wante colikaay bi di l'observateur ba mu jokkoowee ak Ibrahima Bakhoum nekk ab taskatu xibaar wante it xam-xamam màcc ci wàllu politique moom daal dinay xamle ne bu ñu gisee lii xew ci wàllu investiture yi bu ñu gisee gox bu nekk di yëngutu fu mu nekk nii loolu la ko wundu moom mooy ne politiciens yi dañoo daal di wane seen bopp wane ne ñoom seen bopp dong moom moo leen yittee loolu moom moo tax ba fan yi yëpp coow ñu koy nemmeeku ci wàll gi ni mel ñu daal di jukki ak julikaay bii di tribune ci bras de fer maanaam daal xëccoo bu am ci diggante groupe Sénégal ak groupe des médias bii di tribune du ñu xamal ne groupe Sénégal moom tànk parewul ak waa des médias du leen bàyyi loolu nag moom moo tax ba sénégalais ya nekk ca bitim réew ñoom it daal nañuy xamle nangu ëllëg ëccolikaay bii di tribune tamit di ñu xamal ne yeneen patron de presse yi ñoom daal dinañuy xamle sax ne dinañ ci dox ay tànku jàmm ñaari député yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ajjuma bi ñu dëgmal la ñu leen daal di woo ci kanamu commission ad hoc ëccolikaay bii di Sud Quotidien moo ñu koy xamal di ñu wax kon ne ñaari député yooyu ñaari fan moom moo leen dese ngir ñu waxtaan ak seen avocat député ci naka la ñuy mën a taxawee nag ci kanamu dinañu xam waaw am déet ndax dina am ab plénière ngir ñu daal di muri seen kiir kiirlaay yóbbu leen nag ci kanamu yoon kan moo bëgg a fexeel Aïda jàlloo loolu la colikaay bii di la mandat daal di laajte fësal ko nag ci xëtam bu njëkk ndax kii di soxna Aïda Diallo nekkoon kenn ci ay soxna dem si yàlla Cheikh Béthio Thioune moom dafa am benn commando bu ko doon jéem a ci biir këram wante nag mbir yëpp dina leer ndaxte colikaay bii di mi ngi ñuy xamal ne ñii di ay avocat wu Aïda ñoom lépp lu ñu yore woon ci wàllu preuve jébbal nañu ko waa gendarmerie ñi nga xam ne ñu ngi def ab l'enquête ngir indi ay leeral la ci wàll gi ni mel ñu dem ba ca Lac Rose ànd fa ak suñu naataango yu ci likaay bii di le soleil ndaxte Lac Rose bokk na ci bërëb yi nga xam ne moo gën a siiw fii ci biir euh, Sénégal bërëb boo xam ne ñu bëri dañuy dem di ko fa nemmeeku wante su fekkente ne jóguñu si dee lakk Rose boobu moom mun naa dem ba daal dina sax kenn dootu ko gisati la ko waral moom mooy ne lii tax ba lac bi gën a naat maanaam daal ndoxu taw yi nga xam ne dafa war a di yegg am na nag lu koy euh, gàllankoor ndaxte tabax nañu li wër li nga xam ne moom mooy lac rose bi rax ci dolli utum xorom bi nga xam ne moom la ñuy def ci biir lac boobu tamit euh, mun na kaa indil ay gàllankoor jeexale ko ko julikaay bii di libération di ñëwaat ci mbir bu doywaar bi nga xam ne ab doomu réew France moom moo ko fi daal di amal mi ngi tudd Brice Terre moom li ko fi indi woon moom mooy fexe di jàppale ay euh, ndaw yu nekk fii ci même réew nekkite yow mi ngi ci doon profito doon leen sàkku kooku nga xam ne nag mi ngi tudd Brice Terre coolikaay bi di Libération mi ngi ñuy xamal ne caabi féete na ko gannaaw wante it daal dina ñuy xam ne am na ci lu tolloog juróom ñetti xale yu ndaw yoo xam ne jot na leen def naka sudul noonu ñooñu sax daal dina ñuy firndeel li ni mel keroog ba ñuy jàkkaarloo ak enquêteur yu brigade de protection de mineurs bu commissariat central bu Dakar suñu naataango yi sax di ñu nettali li dal kenn ci ñoom te mu am ci lu tolloog fukki moom dañu daal di koy euh, filmer laata nag euh, ki nga xam ne moom moo euh, di ko jox koppar gu toll ci junni ak juróom-benn téeméer lii moo li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu di ñaanaan njeexteelu bés ak La coalition Benno Bokk Yakaar vole en éclats à Ziguinchor. En effet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le maire Abdoulaye Baldé, qui avait rejoint avec armes et bagages la coalition Benno Bokk a été mis sur la touche par le président de la République, Macky Le président président de la coalition Benno Bokk Yakaar, a préféré miser sur Benoît Sambo comme tête de liste communale. Au niveau départemental, le président de la République aurait porté son choix sur Seydou Sané. Maintenant, reste à savoir si le tandem Sambou Sané sera capable de relever le défi face à la coalition Yewwi Askan Wi Sonko, d'autant plus qu'Abdoulaye Baldé a claqué la porte de la coalition Benno Bokk criant à la trahison tout en écartant euh, pas une alliance Tidiane Ignace Ndeye de Ziguinchor nous parle aussi du camp de Doudouka qui s'interroge aussi sur le choix du président Sall. Un éventuel vote sanction ne devrait étonner personne. En tout cas, cela risque d'être un coup dur pour la coalition au pouvoir. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui a donc décidé de quitter la coalition Benno Bokk et de mettre en place sa propre coalition pour les locales, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. Une Ousmane Sonko à Ziguinchor ferait mal à la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours concernant les investitures, cette fois-ci à Saint-Louis, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que la coalition Yewwi Askan est dans la tourmente. Et c'est l'ancien maire de la ville de Saint-Louis, le député Cheikh Bamba du FSD/BJ qui est monté au créneau pour réclamer et obtenir l'annulation du procès-verbal d'investiture de la commission départementale d'investiture de la coalition de choc des ambitions. Euh, cela démontre qu'une fois de plus que ces politiciens, ce qui les intéresse, c'est d'abord eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs Ibrahim Bahoum, journaliste et analyste politique, qui l'a déclaré à nos confrères. Parlons à présent avec nos confrères euh, du journal Tribune de ce bras de fer entre l'État du Sénégal et le groupe des médias euh, via l'administration euh, fiscale. Nos confrères nous indiquent que le groupe continue de subir des assauts répétés. Cependant, il faut noter une internationalisation

compagnie de leurs avocats députés avec une probable convocation devant une plénière avant de décider ou non de les livrer à Dame Justice. Qui en veut à Aïda Diallo? C'est la question qui barre la une du journal Le Mandat. En effet, l'attaque du commando au domicile de Sohna Aïda Diallo qui a défrayé la chronique au lendemain du Gamou après la sortie de ses avocats n'a pas encore livré tous ses secrets et pour tirer cette affaire au clair, les conseillers juridiques tribunal de grande instance de Mbourg. Et de ce fait, nos confrères se demandent qui veut attenter à la vie de l'une des épouses de feu Cher Betiochoun et à quel dessein coup de com' ou assassinat raté. La gendarmerie qui a été saisie par le chef des poursuites va éclairer la lanterne des Sénégalais dans les prochains jours. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un reportage sur le lac Rose, l'un des patrimoines naturels les plus célèbres et les plus visités au Sénégal. Cependant, le lac risque d'être rayé de la carte dans un horizon proche. Mis à part la baisse de la pluviométrie, l'homme est économique qui s'annonce selon nos confrères euh, du quotidien Le Soleil. Les constructions sur les rives du côté de la mer et les nouvelles agglomérations de Keur Massar, Bambilor, Sangalkam, Niag obstruent toutes les voies d'alimentation de cet écosystème unique au monde et selon nos confrères, euh, si rien n'est fait, le lac Rose va disparaître. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de cette affaire d'abus sexuels, de pédopornographie des enfants défavorisés dans un à Keur Mbeifal. Nos confrères nous indiquent que huit victimes de brise terrée ont été identifiées et ces victimes ont confirmé les faits devant les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs du commissariat central de Dakar. Nos confrères nous parlent même de cette orpheline âgée de 13 ans violée et filmée par l'humanitaire pédophile avant de recevoir 8000 francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.